Ben, je m'appelle Marie-Agnès Diémé, euh, présidente de l'association Togal Djang AJX, au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'objectif de la rencontre ben, Nous étions là aujourd'hui pour euh, l'inauguration et la remise des clés euh, du bloc sanitaire de, l'école de Thiesnon que nous avons construite pour essayer d'éradiquer la maladie des mains sales, puisque tout le monde sait que les écoles n'ayant pas de toilettes ou bien ayant des toilettes en mauvais état, pousse les enfants à pisser euh, et puis à déféquer autour des, classes et pendant la récréation de jouer dans le même espace, ce qui fait que euh, le, côté hygiène euh, n'est pas du tout respecté. Et nous avions constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des maux d'yeux, qui avaient des maux de ventre. Et ce sont les maladies que nous appelons maladies des mains sales. Donc, euh, pour éradiquer cela, cela étant euh, une branche de notre association, nous aidons aussi l'éducation, mais aussi le, côté santé. Nous avons décidé, avec l'aide de l'apport de la province de euh, Flandre orientale en Belgique, de leur construire ce bloc sanitaire. ce bloc est composé de six chambres, donc deux blocs pour les petits, puisqu'il y a une classe maternelle. Euh, une école maternelle, deux blocs pour les filles, puisqu'on voit que les filles, à partir du sem 2 commencent à avoir les menstrues et ne pouvant pas les partager avec les hommes euh, pour ne pas attraper des, maladies, euh, disons, sexuelles. nous leur avons créé deux blocs qu'elles pouvaient exclusivement utiliser et deux blocs pour les garçons. Vous avez appuyé par vos partenaires euh, euh, bah, le partenariat que nous avons exclusivement euh, étranger, nous travaillons avec la région de Flandre orientale. Donc le Stade Zottegem, donc c'est la commune de Zottegem, j'habite en, Belgique, la commune de Zottegem nous, subventionne. la Flandre orientale, qui est donc une région, une sous-région, nous subventionne aussi et euh, diverses autres organisations, parmi lesquelles mes amis qui sont venus ici, qui font partie de l'association OCRA. OCRA, c'est un organisme euh, composé de gens d'un certain âge, euh, à partir de 55 ans et plus, donc de seniors, comme ils les appellent là-bas. Donc ce sont ces gens-là qui nous subventionnent. Vous euh, bon, euh, euh, sans me tromper, nous avons déjà construit ici le, réfectoire, mais avant cela, il y avait la classe maternelle que nous avons d'abord construite, et puis après le réfectoire. Et maintenant, nous en sommes à ce bloc sanitaire. Entre-temps, il y a les autres apports que nous avons ici. La cantine scolaire, nous l'avons à 100%. Et ça fait déjà quelque chose comme 5 euh, euh, ans qu'on les soutient en, cantine scolaire. Et euh, aussi le matériel didactique, les tables bancs qu'on leur donne, le soutien scolaire pour certains, certains enfants. Et aussi, en son temps, il y avait les blouses, plus l'inscription et le, don de, livres, de sacs à dos pour les enfants nécessiteux c'est seulement dans la région de ce que vous faites ces gens, euh, Non, non, non. AGX travaille en fait dans tout le Sénégal, mais nous travaillons qu'à la mesure de notre pouvoir, ce qui fait que euh, nous sommes sur Thiès parce que c'est notre base, mais nous travaillons aussi à, euh, en Casamance, à Kolda, en Ziguinchor, à Seyou et à Etama. Donc nous avons en tout six écoles, trois ici dans la zone et euh, les autres trois se, se, trouvent dans des zones un peu euh, délaissées de, du sud de, de, en Casamance, donc euh, à, à Kolda, Ziguinchor et Tama, comme je, je viens de dire. Euh, nous voudrions faire plus, mais bon, <laughs> ce n'est pas possible. Si la demande est trop forte, comment vous faites pour sélectionner le meilleur l'école que vous allez choisir en premier notre association est une association qui fait une discrimination. Euh, nous travaillons beaucoup plus pour le maintien des filles à l'école. Nous travaillons beaucoup pour les pousser à l'excellence. Donc nous aidons les filles, nous les galvanisons, nous leur donnons des cadeaux. Euh, cela fait rire, mais moi quand une fille a une meilleure note qu'un garçon qui était derrière, qui était devant elle euh, la prochaine, à la prochaine composition, je lui donne un cadeau. C'est pour un tout petit peu les stimuler, leur, les pousser à, cela. Et donc euh, nous ne choisissons pas forcément euh, des, des, écoles juste par compétition. Nous regardons les écoles qui en ont vraiment besoin, mais aussi les équipes pédagogiques et euh, des, parents, les associations, des parents d'élèves sur lesquelles nous pouvons aussi compter parce que nous, euh, nous faisons un suivi quand même des réalisations que nous faisons. quest euh, c'est le social qui a choisi Marie-Agnès <laughs> ce c'est pas le contraire. Je suis tombée dans une famille où euh, le social était pratiquement une religion, est une religion. Je ne sais pas, je ne sais pas répondre à cette question parce que pour moi c'est tout à fait normal que de le faire. Je ne pourrais pas, je dis non, mais je je dis non et je vais, quoi, donc en disant oui. Alors, je ne peux pas l'expliquer, je, je, suis juste quelqu'un qui ne peut pas regarder, faire des choses. Euh, si j'ai la clé, je, l'ouvre et puis j'avance. je n'ai pas, je n'ai pas un message à donner. J'ai plein de messages à donner, mais euh, je préfère ne pas les donner. Je, fais et puis j'espère que les femmes vont venir me trouver en chemin. Parce que si je commence à les donner, on perdra du temps, quoi. Donc, euh, je veux juste qu'elles se mettent en chemin et puis euh, qu'elles attendent, qu'elles n'attendent pas que quelqu'un d'autre vienne faire le travail à leur place. Elles peuvent plus qu'elles ne pensent, elles peuvent plus qu'on leur dit, elles valent plus qu'elles ne pensent, elles valent plus qu'on ne leur dit. Et puis, le reste, c'est que du blabla quoi. <laughs> ah man la Marie Agnès Diémé euh, mangue de dëkk Thiès mais belgique la Thiès euh, mais Belgique laa nekk maay présidente association togal Jàng ak AJX mi nekk fii Thiès. waaw tey moom dañ ñëwoon fii ci cees euh, noon ndax dañ fi tabaxoon benn bloc sanitaire bloc sanitaire meeg li ko taxoon a jóg li taxoon ñu tabax ko moom mooy ne dañu seetlu woon ni xale yi lu nekk da leen ciy dimbali mais du tere ñi feebar euh, am ay métitu bët métitu biir te loolu yëpp li ko indi woon moom mooy mënoo nekk si bërëb boo xam ne fa ngay fowee fa ngay sawee di fa def lu nekk tilim bi nekk ci li ko wër ñi xam ne nag boo bëggee euh, indi ay garab di leen ko jox faju ko boo da ngay jàngoro boo ko bëggee génnee da ngay dem ci fi xam ne foofu mooy reen yi donc reen bi moom mooy ñu jox leen bloc sanitaire ñu mën di ci di ci di ci dem euh, bu ko defee li nga xam ne mooy cour bi ñu ciy foo des nekk kuur ñi ciy fo euh, ñu mën a am seen wérgu yaram euh, loolu moom moo ñu taxoon a jóg daal ndax dafa bokk tamit ci li nga xam ne moom dañun moom la ñuy xeex ci sunu association xale bi dem ci école ba école bañ a nekk benn affaire boo xam ne xale bu ciy dem du kontaan xale buy dem ci école euh, xam nañ ni foofu la ëpp lu muy toog kës këram donc foofu la war a gën a amee lu ko ci neex ak mu nekk ci ci sagoom ak lépp daal Euh, bloc bi tey moom euh, six moo ci nekk juróom-benn néeg ñoo ci nekk ñaar yi ci ñaar yi njëkk yi dañ ko jël jox ko xale yi tuuti yi ndax ñoom xam nañ ne euh, tamit seen kii yombul moo tax ñu def ko mu jege seen classe sax Euh, ñi def ci yeneen ñaar yoo xam ne xale yi jigéen la ndax bu ñu demee ba nga xam ne dañu commencé gis mbaax euh, ñu bokk toilette te góor ñi na góor ñi ñëpp xam nañ ñoom dañuy dañuy yoxoñ rek muy dem <laughs> euh, voilà donc ñu jox leen ñoom seen néeg ñu mën koo tëjal seen bopp di ko toppatoo yeneen ñaar ñu jox ko góor ñi ñoom ñu def lu leen ci neex mais bon j'espère que dinañ ko respecter voilà waaw fii bi ñuy door teg ñoom dañu fekkoon ñoom ñi nekkoon ci benn euh, du ma ne ngunu mais benn mbaar ñi yoreen ci maternelle bi euh, ñu xool ne du tamit loo xam ne dafay tax xale bëgg dem jàngi ñu daal di leen tabaxal seen classe maternelle ba leen ngeen di gis noonu bi ñu jógee ci classe maternelle bi ñu gis ni xale yi amuñu lu ñu lekk fii te am xale yoo xam ne fu ñu jógee dafa sore ñu defaral leen euh, cantine bi ndax lekk ci biti lekk am na mais di ngay lekk ci biti poussière bi ñëw ji itam hygiène nekkatu ci woon ñu defaral leen cantine scolaire bële euh, mooy réfectoire bi ñu mën si lekk et puis ñun bés bu nu arrêté ñoom ñu mën ko utiliser aussi di ko luweeg yooyu mën a jël seen xaalis continuer di tabax di di lekkal di di euh, dépensal seen bopp gis ni toilettes yi fële moom mënuma leen sax wax dem leen xool ko ak ñi ñu amoon fit dem ca ñooñu nañ toog ñaari fan doon lekk ñi daal leen tabaxal bii bi nga xam ne bon euh, suñu partenaire itam ñoom ñooñu ciy jàppale euh, en espérant que bon euh, dina dina gën a yombal ñoom itam seen nekkin fii parce que même ñi fiy liggéey day day gën a yombal ñoom itam seen liggéey waaw social moom moo ma tooñ moom fekk ma toog rek daa di sax ci man voilà euh, mënuma ci dara parce que loolu lañ ma yaree loolu laa xam euh, man tout petit dama doon dem ay colonie de vacances euh, daj suñu kër ku nekk dugg ku nekk xaj fa loo mën defal ko sa moroom man bon loolu laa xam quoi mais xëy na tamit dafa am nit ñoo xam ne moom la ñu noonu lañ leen noonu lañ leen jambee daaw waaw <laughs> enflammant <laughs> Ja, ik ben Marie-Agnes Djeme, ik kom uit eh, Vlaanderen, eh, Oost-Vlaanderen. Eh, ik ben de voorzitter van Togal Django en AGX, AGX Djapele Gale, dat is een naam en, en de Wolof, een taal van Senegal. Voilà. Mano, kijk daar, pour nous réussir. Wauw. Hm. nee na nou, moom je boppen moom wax yàllaa ko teg loolu moom kiiwu ko moom loolu nu mu munte wax jàppewu ko dara ci yàlla la ko def kenn teg ko kenn kiiwu ko waaw mu ngi koy gërëm yàlla di ko sant parce que mënoon naa toog kër ga du def dara mu toog du def dara léegi ñu koy sarax du kii wante deful loolu day dem di daan dooleem di defar di jàngal xale yi ñëw waaw été vraiment à la dernière minute elle est quand même venue daf ñu yëg boot ñu ñun borom bopp yu yaatu ñu bëgg borom ginnaaw yu yaatu ñu mëna ñu bëgg ñoom ñoo ñuy jox fit ñoom ñooy tax ñu ñuy jox ci yéen a tax ñu dund rek waaw c'est c'est elle euh, la DG de la chambre de commerce mënoon na ni ñuy filmé woo seen bâche ci bi Euh, seen ëtt bu bon bi seen sii si woow yi du ma ci dem voilà euh, loolu moom mooy tax ñu ñuy dox te buñ jógee di dem c'est pour ça waaw ñun wutuñu ay styliste li ñuy wut moom mooy ku mën a gaaral boppam dem li ñuy wut moom mooy ci mënal boppam defal lu bopp du tuuti dem yoonam donc je pense que xale yi ku leen ngemb ñu dem xale yi ku leen ngemb ñu dem yéen laay remercier yéen ñu fi nekk bu ngeen demee jot li ko ñu ñëwul woon ba léegi maa ngi xulóog ñoom paay ma ah il y a des moments yoo xam ne xol dafay fees euh, je remercie je remercie mais yow xamuma ma dafa xulóog ko nga yóbbaante euh, je remercie les amis qui sont venus mais mënoo chaque fois boo wootee les mêmes thèmes ñoom ñooy Cees noonu sab ko ak leen seen bopp dafa dagg yenn yi ñu toog di ko di ko wax wiiri téye leen seen ñii am na lu jom nañ leen jàppale ñu jóge fii ñu ñu yë yëkkati ñu yóbbu ñu fu ëpp fii nañ leen jàppale jàppale bi nag moom mooy nga koy seet naan ko ndax dem nga jàngi jàppale bi moom mooy mu def benn bu tuuti ngay wër di ko wax naan sama doom moo lii looloo ngay jox fit bu ko defee bu ëllëgee mu def lu ko raw jàppale bi moom mooy mu jóg taxaw nga jóg taxaw jàppale bi moom mooy nga waroon dem fenn ñu woo la ne la daf dem nga dem ci tubaab bi loolu lay def waaw tubaab bi doomam buy dem danse koy wax fu ne waaw ñun nag sa doom day dem nga nekk ca doo nga sax faale keneen mooy ñëw naan yow de sa doom mi ngi bu génnul tale rek da nga naan sottereegu sottuleegul bàyyi leen loolu dimbali leen xale yi ñu dem dimbali leen xale yi ñu dem c'est pas beau et je suis pas content et je le dis aujourd'hui waaw waxuma ko pour man merci ngeen baal ma